lu yëg-léeg kaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yëral bés bi les jours di dikk ak ñun si convocation journaliste yi nga xam ni si régime Bassirou Diomaye Diakhar Faye dama ne la ñeen convoqué bés bi les jours nag gis nga yëf yi ma ngay bëgg ëpp te mu ngay bëgg a doy waar nag ndax dama ne gis nga lu ëpp tuuru yëgle kaay bi dañoo xamal nii gis nga journaliste Pa Moussa Traoré di directeur de publication bu journal Tribune naa bañ ko tegee loxo di ki démb nag daal di koy teewlu ma ne la si guddi gi daanaka ko libéré waaye sa aljuma ji dañ koo convoqué waat da daal di koy wooluwaat sa section de recherche bés bi la journée gis nga ba si Mouhamed Gueye bu quotidien moom tamit gis nga jot nañ koo teewlu sa duwaanu gendarmerie waaye gis nga dikk tey ji maanaam la ñoom ñaar ñëpp nag jot nañ leen a convoqué waat sa section de recherche ngeen teewluwaat leen yéeg bi dañu xamal nii gis nga Madiambal Diagne moom jàppal ne waxtu wi maanaam la ma nga sat bëtim réew te kàddu nga na koy yëkkati xam ne mooy sama directeur de publication kese bu fekkee ne dañuy jàpp rek maanaam la ñu boole que mbootaayu taskatu xibaar gii di kap si boppam fi mu ne nii ñu ngi koy rek maanaam la arrestation yi nga xam daal nay am si seen mbokk taskatu xibaar gii maanaam tey woote si régime bii ab ndax moom Ousmane Sonko lam daan wax si arrestation Pape Alé Niang te koy naqaru te koy ñaawlu mën na na seet si loolu te ñi nga xam ne ñoom ñoo suñu mbokk journaliste yi de turbine yéene kaa bi dikk ak ñun si affaire général Kandé bi nga xam nii mën la gis nga dikk tey jii si aljuma ji dañ leen convoqué waat de ma ne la sa duwaanu la te tey si suba gii la turbine nañu boo bëggee dégg-dégg tamit nga directeur de publication bu quotidien moom tamit daal lañ koy convoqué ndiki tey turbine yéen a kaay bi dikk ñun si si affectation bi nga xam ne daal nañ koy affecté général Kandé ma moom colonel Abdou Aziz Ndaw ne lii lu la dama lii jarutoon ay coow ndax ab décret moo permettre ñu Thierno Alassane Sall na ko may ma ñëw gis nga dogal yi xam nii mën la nouveau régime bi daal nañ koy jël xel mënees na see de mën la si yoren nga xam ne noonu la ñu war a daal nay dikk na si coow li nga xam ne daal nay am si nomination générale Kandé comme attaché de militaire colonel Abdou Aziz Ndaw gis nga statut d' militaire mën la nekkul affaire humiliant wala loo xam ne lu lay wàccee sa grade la déedéet dama la gis nga lu complexe la nag bi yeboon a leer waaye gis nga décret bi nga xam nii moo yóbbu général Kandé sa réew mu Inde ma ne la lu légal te lu conforme la ci loi militaire te gis nga si mbirum valorisation des fonctions jàppane lu normal la na te yoon la ñu daal di na ab général comme attaché de militaire rek ma ne la kon kay ana coow li amul benn illégalité rek boo bëggee dégg dëgg Montey de bu ñu fàttali koo aide camp bu maître dans la dépêche du ñu indil kàddu yi nga xam ne Thierno la si affectation générale Kandé la coow li bari na de la a indi suñu armée ko gis nga coowalu général Kandé bii ma ne la état bi daal nay fatt fépp nag daal di miine terrain bi yëpp kon kay na leer waay waay li ko mooy directeur de publication tribune ma ne la daal nay delluwaat ndiki tey ji sa section de recherche ma ne la ànd ki nga xam ni moom moo bu journal quotidien de waaye gis nga cap si boppam moom mooy woo autorité yi ngir ñu daal di savoir raison garder de les échos yéen a ko gis nga lu si yéeme te doy waar mooy lu matul ñaari weer ci régime bu bees bii mooy régime bi si boppam dañoo convoqué lu toll si ñaari ay taskatu xibaar lii moo yéeme te doy waar seetal loolu Abdou Mbow ay kàddoom si yéegle kaay bi di xam le nii ne waa lii moom lu mu doon réforme yi nga xam ni gouvernement bii mu ngi koy jël mën a lii ab menace la wala ab lan la Les Échos yéene bi di dikk ñun ci kàddu yi nga xam nii mën ay kaddu yu tàng jër yu premier ministre Ousmane Sonko yëkkati ndax moom PM Ousmane Sonko ndiki démb la def te gis nga xaalis yi nga xam ni ñeen ñi si autorité yi fi jugee daan koy sàcc daal di koy luubal jàppal dañ ko goxiwaat de dañ ko goxiwaat bi yow lii kay na leer gis nga fii kenn mënu fee tiital mbaa ngay xooxtal kenn de ma ne la réew mi kenn mënu koo déstabiliser lii kay na leer Ousmane Sonko premier ministre ne gis nga boo bëggee dégg dëgg amul kenn ku ñuy defal compte rendu du homme am ku ñuy waxal kenn kese la de Ousmane la jàppal ne dinañu wàññi li nga xam ne la moom Ousmane Sonko di wax ne nga fii gars nga xam ne dañuy jéem a jug ngir déstabiliser réew mi bu yeboo dañu toog de te gis nga yéen askanu Sénégal man ne la jàppal na seen xel dal ndax gis nga fii lu fi waay defoon si ay luubal ak ay ñaaw téef man na la di ko rendre compte sénégalais de te gis nga yàqante wuñ si dara nag journal yoor yoor dañu indi kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko premier ministre daal na koy yëkkati opération gox <laughs> gox kay le PM Ousmane Sonko mën na la fi mu ne ni mu ngay avertir tey dànkaaf na ñi nga xam ni ñoom ñoo du luubalu alalu askan de waaw waaw te gis na ñun amuñu kenn koo xam ne ñoom la ñuy waxal de te lay defar compte rendu waaye pourquoi ñun bu ñuy am ku ñuy waxal sénégalais kese la ñuy waxal de yeboon na leer te gis waxtu waa ngi ñëw mën na lépp leer nag kon kay doucement doucement tempo tempo ñu wax si leneen tey jàll si beneen journal le 24 heures waaw yéen kaay bi dañu indil kàddu yi nga xam ni Fatou Ndiaye GPS daal di koy yëkkati gannaaw ba ñu fësalee liste bateau ak gaal yi nga xam ni ñoom la ñu ngir ñu napp fii si waaxu Sénégal ma la kon coow li ndeketee fin ndekete si juróom fukki licence de pêche ak ñaar fukki ak juróom ñeent fi mu ne ñoom ñoo wax kon gaa ñi bàyyeeguñ ba tey lii tamit doy na waar de ah waa baax na rek l'observateur di ko ñun nag si exécution budgétaire trésor public yéegle kaay bi di ñoo xamal ni gis nga boo bëggee dégg dëgg charge de la dette extérieure fi mu ne nii wàññeeku daal di nag si moyen de 167 virgule 46 milliards de francs CFA te nga dette extérieure bi si boppam ma ngay toll nag si 371 virgule 29 milliards waaw waaw l'observateur na ko gis nga boo bëggee dégg dégg augmentation de la masse salariale maanaam la vingt neuf virgule trois milliards de francs CFA dégg loolu waay l'indépendant yéene kaay bi di ko si tukkum nemmeeku bi nga xam ni njiiti réew mi Bassirou a Diakhar Faye daal na koy amal si ak si Dakar Bamako waay waay ak i Ouagadougou l'indépendant nañu gis nga boo bëggee dégg dégg ak si Dakar Bamako ak i Ouagadougou naan gaa ñaa ngi dooleel de ndax moom njiiti réew mi na la bee def waay daal nay dem nag si réew mi Burkina Faso rek si lépp loo xam ni mën na dooleel tey retaxal digganteeg ñaari réew yi lii lu baax la waaye waaw ñu jeexalee ko ak journalu la dépêche républicaine di ñëw ñun na ci ab jiyee ak tooxi boo xam ni ma ngay xewee sa duwaanu seem bu Bambilor man na la si duwaanu Bambilor la xewee de ndax ab benn ndongo ab élève man na la moo daal di faat ab camarade de classe am de te gis nga lim ko def mooy ab barre de fer la ko dóor gannaaw li nga xam ne am na si ñoom ñaar ab xuloo la élève bi daal di jël ab barre de fer daal di koy ne moo di camarade de classe am de man